mbokku jullit yi mbokku talibé yi ci ndigalu serigne Sidi Maxtaar Mbàkke khalife général bi mourid yal na fi yag lol te ànd ak wér ci kilifté fu serigne ahmadou Maxtaar Mbàkke khalifa Daaru Xuddoos serigne abdourahman Mbàkke Gaynde Fatma moy sogn mbolé membre yu fédération rawatina wilaya yi ci màggaluk Daaru Xuddoos di bés bi serigne modou mustapha Mbàkke ibnu cheikhoul khadim indé ku tedd ki serigne Touba fi Touba muy bés bi serigne Touba ñibisé Touba ñukoy amal fi Touba Daaru Xuddoos di bés bu am solo ci taarixu yoonu murit ndax jëlee nañu ci sëriñ Modou Moustapha Mbacke xaadimal Moustapha mu ne képp ko fanaan ci dëkk bi ci bés bi sunu borom jéggal la say bàkkaar bis boobu Serigne Touba wàcceb liggéey Cheikh Moustapha marale ko ak rasulillahi mu ñu di ko fay bis boobu la ñu woote de la deux la képp ki ci feeñ lu baax ah Cheikh Moustapha fat la ku mu fat doo fanaan biti Cheikh Amadou Makhtar ne bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñen la deux novembre da ngay ñëw ci bisu Cheikh Amadou Moustapha bii nga xam ne moo indi woon sëñ Bamba ci biir waaye ku fi ñëw sëñ Bamba bu xii du naax saa day taw ku ma nga gis dàq ba demal daal xuddoos kenn nag